ngeen jëf yéen ñi nga xamante ni yéen safoo li di Rewmi TV si seen émission euh, actu réew mi mu mel ne namoon ngeen ñu amoon benn temps bu xaw a ndaw boo xamante ni gisoo leen ñu woon ñu apparaître mais ki nga xamante ni moom moo waraloon suñu analyste suñu chroniqueur daal nay dellu si ci plateau bi euh, muy euh, monsieur Jean Fall comme ni ñu ko defee saa su nekk rek dañuy waxtaanee wàllu actualité si fànn yëpp rek di ci ànd ak ki nga xamante ni mooy suñu chroniqueur fii ci Rewmi TV à travers koy euh, dalalaat rek di ko waxaat dalal jàmm euh, monsieur Fall na moon nañ la. maa leen raw euh, Mor jërëjëf kontaan naa ci dellu si waat ndaxte xam nga jaam ak bëgg-bëggam yàlla ak dogalam. Mm-hmm. waaye yaram bi xawoon na sutante rek moo taxoon loolu nga wax noonu léegi rek mu amoon. li nga xamee ne mooy internet yi. Mm-hmm. dégg nga nammuñu. waaye dellu siwaat nañ ci jàmm te gis nga actuellement nii maa ngi nekk en pleine forme dégg nga te war na feeñ sax ci li nga xamee ne noonu. moom la tey voilà donc tey moom je pense que di ngeen kontaan ci ki nga xamante ni mooy monsieur Jean Fall mais comme ni ñu ko defee saa su nekk rek dañuy commencer ak li nga xamante ni moom mooy à la une de Rewmi quotidien investiture pour les locales tel un capharnaüm euh, Sonko impose euh, monsieur Tall euh, Benno Bokk Yaakaar se fissure à Ndindy Assom divise Benno à Keur Massar. François Wade euh, contre attaque Amadou Ba devient premier ministre euh, politique loolu mooy euh, à la une de Rewmi Quotidien Kaolack un camion tue un jakartaman marché Lat Dior 15 cantines toujours à la une de Rewmi Quotidien déficit de 885 millions de sa filiale distribution Petrosen vers la faillite partie sport ak ñu daal di gis ci li nga xam ne mooy une sport plus de Rewmi Quotidien ballon d'or 2021. Le classement a fuité. Togo contre Sénégal, Marocain au sifflet. Et la CAF autorise 28 loolu moo nekk yi nga xamante ni moom la réew mi quotidien fësal tey ci li nga xamante ni moom moo paraître tey jeudi daal di euh, tombé ak 28 octobre 2021. donc monsieur Fall ban analyse ngay def ci euh, la une bi nga xamante ni def nañ ko euh, ci réew quotidien muy wàllu investiture yi ñu ne teel ci li nga xamante ni moom moo mooy à la une des Rewmi li nga bu ci kenn nax na réew Rewmi Quotidien lii ñu leen indil nii mooy li nga xam ne moom moo am xam nga élection locale yi ngay gis ni dafa nekk benn bomb boo xamee ne ñu ngi koy nekk di ko euh, laam-laamee di nasaxal ak dégg nga di ko xaw a jox tuuti moins d'importance mais dafa am importance majeure ndaxte yeneen élection yi nga xamee ne ñoom ñoo nekk ci gannaaw ñoom euh, bii élection bi moom moo koy euh, conditionné moom moo koy motiver moom mooy nekk conséquence bi am ni mooy li nga xamee ne ba ca législative yi présidentielle loolu moom dafa leer dans le paysage politique li nga xamee ne nag euh, moo nekk ci wàllu ni ñu ko waxee ci investiture yi dañuy wax rek ni sénégalais dégg nga bu affaire élection jotee képp ku ci nekk da ngay bëgg ne maa fa nekk man la man la ñuy bind ku ñu bindul nga mer. voilà donc euh, ci loolu la ñuy jaaree daal dugg ci euh, premier euh, sujet yi ñu daal koy war a waxtaane ci wàllu investiture yi nga xamante jamono ji moom moo lëmb biir réew mi kii xëcc fële Massamba xëcc fële ku ci nekk wax ne man la ñenn ñi di claqué ay porte ku ci mel ne Abdoulaye Balde bu Ziguinchor ki nga xamante ni moom mooy Assome Dia ma nga andi coow fi nga xamante ni mooy Kër Massar soo war ni dem aussi mi ngi wax ci wàllu candidature am ku ci nekk yaa ngi xëcc sa côté di wan ne yaa fa nekk donc xëccoo bi nga xamante ni moo am jamono ji ci ci biir euh, coalition yi fi am que sa soit ci biir opposition bi que ça soit ñi nga xamante ni ñoom ñoo euh, nekk ci nguur gi donc yow boo ban analyse ngay gis ne jamono ji moo waral ku ci nekk di di di xëcc ne na yaa fi nekk alors que je pense que euh, lii defoo war nekk loo xamante ni nekkul élection ku am doole mais élection wu ñi nga xamante ni ñooy askan wi ñu war tànn ki leen war a yoral seen seen dëkkuwaay. waaw xam nga toujours de comme ni ma la ko waxee rek que ni bu élection jotee ci biir Sénégal ku ci nekk. da ngay au nga peese sa bopp ci sa gox goxaan yi wala nga daal di peese sa bopp mais da ngay wax ni fi ñu toll nii ak fu ñu munti toll ci euh, état major yi bu ko dalee ci nguur gi dañ naan dañu war a séddu toog nañ lu yàgg sédduñu toog nañ lu yàgg maa ngi topp ci affaire bi bokk naa ci li nga xamee ne mooy euh, majorité présidentielle bi mais kenn mosuma tabb dégg nga bu affaire élection yi jotee ñoom ñëpp dañuy dellu siwaat pour jéem a fexe pour am li nga xamee ne rek moo di seen part du gâteau suñ ko amul rek dañuy def ni Abdoulaye Baldé def ñëw dugg si bi mu demee ba gisul ci boppam mu daal di jóg delluwaat dem Ziguinchor man nag li nga xamee ne moo ma moo ma métti ci euh, wàllu élection yi ak wàllu euh, Ziguinchor ak Casamance yi dañu gis ne Eh, tant que santuloo Samb wala santuloo Sonko wala santuloo Balde dégg nga faal du fa mën a ñëw pour nekk fa maire te am na ay gay am na ay njaay mel ni ñoom dafa am benn ethnie boo xamee ne dégg nga ak saaña comme joolaa yi ni ñu kiyee niñ fa bëree rek mu mel ni ñoom rek ñoom ñoo war a nekk pour falu foofu war naa fi mun a jóge dégg nga juddoo Ziguinchor sant Fall ñëw jël maire yi Ziguinchor waaye da ngay gis toujours day am euh, ni nga xamee ne systématisé ni nga xamee ne stigmatisé li nga xamee ne mooy Ziguinchor dox ko benn particularité ak yooyu am na ko sax ak yooyu waaye dañu jëm ba nga xamee ne doo dégg fenn ci élection yi ku ñu investir ku sant Fall. mais mais affaire bi est-ce nekk aussi euh, loolu loolu nekk loo xam réalité du Sénégal parce que euh, boo nee Dakar bu fekkee ñi nga xamante ne ñooy lébu ànd ànduñoo ak yow pour nga gagné yenn localité yi du yomb lu ci mel ne ay Yoff lu ci mel ne ay lu ci mel ne ay Wakaam il faut nga il faut du mën a am am dara. aussi ci localité aussi même même sant bi day ñëw. xoolal xoolal affaire locale yeeg affaire sant beeg lébu yeeg yooyu amu fi. ndaxte gis nañu fii. dégg nga euh, Senghor jóge fële dégg nga ñëw dugg si fii nekk fii euh, li nga xamee ne mooy président ci biir lébu yi. mais loolu mbiru mbiru njiitu réew la bi affaire localité la. mbirum njiitu réew ak yooyu moo fi indi loolu sax moo fi indi loolu appartenance ethnique yooyu nga xamee ne moo indi lëmbale yi nga xamee ne moo fi nekk. te gis nga aussi boo demee ba ci kii xam nga Bamba Fall doo ko wax ne ko lébu nga mais Bamba Fall <laughs> mu ci biir lébu yi fa la nekkee fi lébu yi gën a safee sax foofu la nekk maire. parce que lébu dañ ko xajal ah nga ni dañ ko xajal moo tax. Ah, mais loolu Sénégal war a doxee. loolu la Sénégal war a doxee fi mu nekk nii gis nga jël nañu eh, élection yëpp dégg nga jéngal ko. def ko affaire de Ziguinchor affaire de Sonko affaire de Sadio affaire de nu mu tuddati euh, affaire de Balde de naka la tuddati euh, euh, Joola Jaata machin Sambu ay yu noonu te loolu moo warul. mais man leen moo jaaxal ci coalition parce que boobu maa gis ñu coalition Yewwi coalition Wallu coalition Benno Bokk Yaakaar mais dafa mel ci biir mel ne ñenn ñi dañoo bëgg a jël mbir yëpp ak a pare ko parce que boo demee fi nga xamante ni mooy Benno Bokk Yaakaar waa PS ñi ñi ñi sécuriser seen bopp parce que nee nañ waa waa waa APR dañoo bëgg a jël lépp jox seen bopp parce que gis nañ ne la plupart ñi sàpp ñëpp ay ministre la nekk euh, a boobu les coalition wàllu Ablaye Wade dañoo taxaw donc est ce que dafa war a a nekk loo xamante ne dafa euh, war a andi ku nekk sa xalaat nga wax wala dañoo war a xool rek nga xamante moom moom moom mooy am xelu taxawal wala ki nga mu ëpp bopp ñu bàyyi ko moom moom mu décidé te buy décidé ay ay ñooñam lay daal di mettre en avant ci kanam. xam nga soo coalition du am kenn ku nekk ci bopp bi pour war a décider pour war a kii. sauf loolu moo am na jamono ji. Euh, euh, loolu am na ci dans certains endroits. te boo demee ci coalition Khalifa Sall. Euh, déjà malgré que moom il est a out. mais am na ay leader yu émergé Wardini ak euh, ki nga xamee ne mooy euh, euh, Diaz. mais moom waxu ci dara moom. bon waxu ci dara mais waxu ci dara mais il a intérêt pour wax ci dara. mais mais mais position bi gis dafa mel ne jamono ji Wardini dañ ko dañ ko bëgg a écarter complètement parce que booba léegi ñi ñi ngi coow moom waxul tax ne ne kii laa jàpp wala kii laa jàppale mu mel ne comme si silence bi Barthélemy la la la jàppale. waaw mi ku ci nekk. sa intéret en politique sa intérêt rek ngay jël bu fekkee ne euh, Barthélemy euh, am na poids politique pour jiire mairie mairie Dakar war euh, am na consensus boo xamee ne taxawu Dakar comme nañ ko defee woon moom la ñu jiital mooy remplacer ki nga xamee ne moom mooy kii Khalifa Sall bu boobaa ñu daal di xam ne ils ont juste mais gis nga la problème moo di que ne tey jii rek maa ngi dégg waat ni mu ngi woote li nga xamee ne moo di waxtaan woote dialogue dégg xam nga waxtaan ak woote dialogue balaa ñu koy def rek situation yi mel nii mais woote ak waxtaan dafa war a nekk quelque chose de permanent dafa war a nekk consensus dafa war a nekk une concertation permanente nga xamee ne au moins nit ñi ku ci nekk sa xol dina rafet waaye doox dem ba nga xamee ne dindi la ba pare wala ñu ngi lay bëgg a nga naan kaay ñu dialogue kaay ñu waxtaan ak yéeg mel noonu parce que waxtaan boobu ça sonne faux te sénégalais yi en ont kon waxtaan boobu xanaa daa amul ci biir euh, Benno Yaakaar parce que li ñu wax ne Macky Sall dina jël ay choix boppam ne lii laa bëgg te loolu ngeen topp est ce que nekk loolu ne fi nekk moom moom moo dara moom moo dara tas Benno Bokk Yaakaar xaw ma ndax dina tas Benno Bokk Yaakaar waaye ni nga xamee ne moom la ñu koy defee moo di que a chaque fois bu élection di am dañuy présidentielle lay commencé dañ lay wax ne la mënuloo nekk président nekk njiitu parti bu fekkee ne nag da nga nekk président ñu daal di am coalition boo xamee ne yow la ñu jël parce que de fait tu es le président yow yaa war a nekk di nas di nocci ak benn groupuscule boo xamee ne ñu ngi nekk foofu di roof ak di rocci ce qui est c'est que li nga xamee ne moom nga gis tey jii la rek moo di que ni euh, Amadou Ba jóge na fi ànd na ak moom dem nañu Dubaï. gis nañu ne euh, Amadou Ba ak euh, Diop Sarr ñu ngi nekk di xëccoo ci biir Ndakaaru. Amadou Ba da sax tab nañ ko ngir mu daal di jiite wàllu élection yi. ci ne booy premier ministre élection yeeg yeeg yu mel noonu yooyu yëpp ay préparation loo yoo xamee ne. ba ci génn sur l'étendue du territoire gis nga euh, li nga xamee ne moom la euh, Macky Sall defati def dilam ak ki nga xamee ne mooy Idrissa Seck pour jox ko yenn parti yi fële ca Thiès jox ko une yenn commune yeeg yu mel noonu ba indi ay frustration yoo xamee ne ñu ngi ci benn bokk yaakaar yi nga le problème mooy système électoral bi nga xamee ne moom la ñuy def nga xamee ne ku ci nekk dañ lay jël dugal la ci ces cinq cent départements yi nga xamee ne moom la Sénégal am dégg nga bu ñu paree dafa am li ñuy wax rek euh, liste euh, bi nga xamee ne moom la président bi le pouvoir discrétionnaire du président bu xamee ne moo ciy dugal les mécontents waaye comme Sénégal 16 millions de personnes la ñu nekk mais ñu fa dugal 16 millions d'électeurs loolu mooy de euh, mooy kii te gis nga aussi dafa am lenn loo xamee ne moom la bëgg ñu def ko ci waxtaan bi fi ñu tollu ni ak ci campagne locale yi la di fi jóg di fi yëngal ay li nga xamee ne moom la ñuy wax ay troisième mandat yi ngay gis ak yu mel noonu ñi koy wax man dama yaakaar ne mos ñu bugg Sénégal ñi koy wax na ñu xam ne senegal ak Mali du benn. mais mais mais loolu mais loolu troisième mandat bu ki ko ak. Congo du benn. mais wàllu troisième mandat boobu Sénégal ak Togo du benn. mais wàllu troisième mandat boobu ki ko wax bokk na ci ñi gën a jege Ablaye parce que c'est le chef de cabinet bu. Ablaye euh, Saleh Mahmoud Saleh turul sénégalais yi. Mahmoud Saleh dafa wax li nga xamee ne moom la bëgg. ah mais li mu wax leer na li mu wax leer mu ne Macky Sall candidature mi ngi dépendre ci euh, élection yi. bu gagné élection yi législative ak locales yi. Macky Sall su gagné woon. cinq cent euh, département yi nekk Sénégal juróom-ñaari xelam xalaatul ne dafay nekk candidat ah. kooku man maa la ko wax mm-hmm. te xoolal ba ñu yegg ba ñu xool wànnent fan lay mujjee ki bëtëb léegi bu conseil constitutionnel tranché ne léegi day déposé conseil constitutionnel du tranché loolu ndaxte euh, li nga xamee ne wax boobu wax nañ ko ba mu jeex moom ci boppam moom ci boppam day teg candidature am ba pare daal indi yat teg. Hmm. mais man mais man mais man bi loolu na nekk question bi may laaj moom mooy est-ce que est-ce que loolu mu wax mënul taal réew parce que jamono ji ñu toll nii ñuy mu xaw a mu a kii nii mu xaw a am tension yi xaw a dëwtut moom mu jug ne Macky Sall bu bu jàllee ci élection yi bu ci amee dara ak élection législative yu jëm day leer ne kon 2024 bi lépp day daal di nooy pour moom. Macky Sall Sénégalais yi dañ pare ci moom. Ah. keneen lañ sax. mais mais mais les les les yi am yi am teewu marron beige nag ñoom. ah sénégalais yi am marron beige nag. sénégalais yi am marron beige sénégalais yi ci nekk gis nga ñii di agité woog ñi ngay kii ak ñoom mimeeg ñoom ah, kii ak yooyu ñoom ñëpp ci nekk da nga am loo bëgg te ku ci nekk wax nga moom ci boppam moo taxaw wax ne. man duma def troisième mandat sama mandat yi jeex na. bu mu dem nag ba ci biir affaire ba neex mu daal di ne daf ciy toogaat ndaxte loolu moom mun na ci rëcc Macky Sall waaye ay jege ñaaleem ak ay famille am ak ñi nga xamee ne ñoo ci nekk ñoom la war a sóoraal ñoom la war a xool ki nga xamee ne ñoo ci taxaw ndaxte candidature euh, euh, Macky Sall dafay tax yeneen Euh, figure émergée ndax sénégalais yi ay vote sanction yooyu ak frustration yi nekk fii yooyu yëpp analyste politique yeeg yeeg mel noonu parce que gis nga gis nga pourquoi analyste politique yi toujours ñuy daanu di normal parce que Sénégal dafa am système électoral boo xamee ne dafa ànd ak xaalis hmm. soo joxewul xaalis doo am dara hmm. yaa ngi dégg xaalis bi suy bare ngay ñëw di jël euh, di def déplacement di dem ba Podor dal di jël lu toll ci fukki kaar fukki camion nga yóbbu leen ku ci nekk nga jox ko mille francs benn t-shirt loolu la sénégalais xam depuis Senghor depuis Lamine Gueye depuis BDS depuis euh, BDS sax bu ma koy wax du kii UPS ak BDS ak ñooñu nga xam ne ñoom ñoo doon euh, ñoom Blaise ak PA yeeg yu mel noonu mm-hmm. loolu moo fi xew gis ngeen ñun ba ñu demee jàngi ba ñim ñibbi si jóge France ñëw dañu ñëw toog daal di ne non le système électoral sondage gis nga fii sondage bu fi dox dara du dox te laaj dispositif da ngay gis naan Macky Sall dina yëkkati fii def nii nga gis ko mu daal di déglu la waa ji wax ba pare mu daal di jékki-jékki gis koo xamee ne euh, ne jiiñ nañ ko sàcc ba pare mu daal di ko jël jiital ko. mais mais est-ce que gars yi fi mu nekk nii loolu la ñuy filtrer fi mu nekk nii. mais ak wax ji nga xamante ne moom moom moo wund ci troisième mandat boobu est-ce que damay benn interrogation laay teg est-ce que si cela se confirme ci 2024 boobu est-ce que li xew Guinée xew Mali nekkul di di di di ruumalaat fii ci biir Sénégal. mënul ruumalaat Sénégal ndaxte Sénégal ñun dañu civilisé on est en démocratie. ah mais. on est en démocratie. mais réew mi réew mi bu bu bu ndee tàkk on est en démocratie. Sénégal Sénégal aussi am da nga fekk ne armée bi mosul taxaw ci ci ci ci dëkk bi. ay 68 génne woon nañ ko defee ay état d'urgence ak yooyu Sénégal dañu structurer armée bi dañ ko structurer. comme ni ñu structuré armée francaise bii nga xamee ne pour que coup d'état militaire am fa dafay jafe dafay jafe boo jàppee fii fii du dox boo taxawee fii fii du dox loolu moo tax gisuloo fi benn euh, général boo xamee ne day ñëw taxaw daal di ne nous avons occupé la la rajo ak yéeg yooyu boo ko defee sax da nga de dañ dul kii parce que ñun ñëpp benn lañu te ni ñu ko euh, ni ñu defee composition armée sénégalaise ak ni ñu ko defee bu euh, bu France looloo tax mosoo ñu dégg ñu naan am na fi coup d'état militaire coup d'état politique moo fi amoon mooy affaire Mamadou Dia. waaw kon mu mel ne kon je pense que sujet boobu daan nañoo laal deux sujets yi nga xamante ne ñoo tapp la woon mooy li nga xamante ni moom moo ñeel wàllu moo ñeel wàllu euh, coowal troisième mandat yooyu ak euh, li nga xamante ni mooy Mahmoud Saleh wax na ko dañu daal di euh, jëm rek wax ci leneen muy li nga xamante ni moom mooy wàllu agression ci biir dëkk parce que jamono jii gis nañ ne agression yi bëri na trop te la plupart ay koy def ay ñoo xamante xamante ni ay ay hommes armés ñoo xam ne di song ay ay commerçant ay boutique affaire yooyu ñu gis ne commencé naa bëri te booba léegi euh, état bi je pense que dafa xaw a am tuuti jafe-jafe parce que à chaque fois ñu ne on a recruté mille euh, wala boog euh, mille mille ay militaire affaire yooyu duggoon ci armée bi donc teewul Sénégal mi ngi am problème sécurité ba léegi donc d'après yow lan mooy facteur bloquant bi ak lan moo waral banditisme bi gën a yokk xam Euh, événement yi nga xame ni moom la dund ak passage Covid bi ak euh, ñàkk politique boo nga xamee ni moo di am sa soxla làmb sa foos faj ko comme ni ko woykat bi doxee woon sooxe euh, rafle ci biir Sénégal moo tax képp ko xamee ne yaa ngi fi nekk depuis ab du Diouf ak ab Ablaye Wade ak ki nga xame ne mooy Macky lépp loo xamee ne yaakaar nañu ne mun na tax ba am sa soxla làmb sa poos faj ko yomb ñu daldi ne nañu xool kii gis nga dañu toog benn benn moment ñu daldi xool soo xoolee le paysage euh, des transports au niveau de Kaolack Thiès dañu gis ne foofu les gens dañu jël avec leurs propres moyens jël les deux comme ni ñu ko waa Burkina façon di defee jël deux roues yi daal di ko dem moyen de transport ak courrier dégg nga inter quartier inter euh, urbain ñu gis ne loolu mu ngi dox ñu commencé di ci wut ay xaalis ak di leen ci sonal ak kii ñu dem ba nga xamee ne légalisé nañ politiciens yi nag au lieu que ñu étudier situation bi nu mu demee ñu daal di toog gouvernement bi ci boppam doon indi saafara far saafara ba jur jàngoro parce que da nga toog ba si yàgg ñu daal di yëkkati lu toll ci mille jakarta jox ko ay jeunes pour que ñuy mën a sutur mu am ci une boo xamee ne dafa dévier Euh, li nga xamee ne mooy dessin euh, bi nga xamee ne moom la ci ak yéene bi ci gouvernement bi amoon ñu daal di ko jël nag dégg nga di ci euh, def naka sudul noonu di ko def ay yëfu caacaay yëfu bandi en plus de ça en plus de ça contrôle yi nga xamee ne moom lañ daan def bu jëkk ba ci jakartaay dañu bàyyi seen loxo parce que dañu ne euh, booy dañ ciy liggéey te liggéey boobu ñu ci def am na ci ay saay-saay yu ci rax yoo xamee ne dañu ñëw di këf sa portable di la rey wala ñu këf sa kii wala ñu daal di euh, duñu respecter code de la route tous les jours camions yi car yi ak euh, euh, njeganjaay def leen comme ay gerte caaf di boxam rek di yëy ñuy de boxam yëy mu dee loolu mooy li nga xamee ne moom la gouvernement bi boo gisee waxu ci mais c'est parce que dafa am quelque part daf ci amoon à de bonnes sensations par finalement affaire ba daal di tourner dégg nga di indi benn gangstérisme urbain boo xamee ne dafa nekk ci jeunesse bi nga xamee ne koo ci laal 18 am 21 ans ak yu mel noonu. mais loolu mooy indi amul benn njëriñ amul benn accompagnement parce que ay temps Macky Sall doon wax ne wey Dakar dinañ ay caméra de surveillance pour mën a xam euh, ñiy def ñaawteef yi dinañ leen jàpp moins de gisuñ gisuñu ay caméra yéen ñi fi am askan néew ndaw yi ñu defee ñaaw te bañ a ñu identifier lañ rajaxe lañ lépp donc euh, sécurité bi su nekk ñu koy gis ci biir réew mi mu nekk ay couac yoo xamante ni état bi nangu si jël ay dispositif donc est nekkul jamono ji état bi dafa dem ba nekk dafa démissionné parce que dafa xam ne mënul lijjanti wàllu sécurité bi si bi Sénégal tout le problème tout le problème moo di que ni affaire caméra yi caméra yi ñu ngi am. Ah, ci yenn lieux yi. ci ngi am yenn lieux yi. exploitation caméra yi ñoom ñoo def défaut. exploitation caméra yi ñoo laissé à désirer. Mm-hmm. waaye gis nga li nga xamee ne. ñu ngi ko doon def démb ak bërki démb pour yokk sécurité bi ñu ngi koy def waaye dafa am laxisme boo xamee ne ak euh, li nga xamee ne moom la ñuy wax Sénégal moo di que ne bëreet la Sénégal am waaye amul mujjantal mm-hmm. ñu ngi jóg doon dégg nga lépp lu ñu dugg commencement bi dina dëgër dina tax ñu ne baax na dégg nga mu ngi mujjee ci ay nangu permis ay abi de pouvoir des ASP ASP bu nekk teg nañu benn policier zawet hmm. léegi boo yee ñu daal leen dugal luubal la indil la ay jafe-jafe foog nga nekk ñoo xamee ne da ngay yàgg di frotter woog ñoom di frotter woog ñoom pour que nga daal di mën a taxaw pour contester hmm. parce que abus de pouvoir boobule dafa bare dafa nekk loo xamee ne amul benn contrôle amul benn kii doo toog ba si yàgg rek jékki-jékki benn colonel wala benn euh, brigadier wala benn inspecteur daal di jékki-jékki taxaw ci benn alkaati civilu dégg nga daal di ko xaw a kii yeeg yu mel noonu magistrat sax ñoom ñooy fa doon faral di am loolu mais magistrat yi léegi fi mu nekk nii am nañu leneen lu nekk ci seen bopp yi que

lii mais bu ñu jëlee benn caméra bu mel ne comme yi xew léegi implanté ko foo xamante ni jeune bi nga xamante ni def ko ñaaw téef la xam na ni euh, bu ko defee dara am ci donc bu dee bu dee mel ne Joubaire danaan bu bu match amee bu tasee rek naa jaar rek daal di toj caméra bi bu ko defee benn yoon moom ñun def li may def parce que boo ko yàqee dañ naan yàq nañ ko dootuñu ko réparé. xam nga xam nga li ngay perdre de moo di que ne Macky Sall bu deful caméra publique caméra privée yi ñu ngi jolli ci quartier résidentiel. Mm-hmm. boo duggee ay marché yi nga dugg ay euh, kii ak yooyu ci buntu kër yi ñu ngi am benn caméra buy balayé tout euh, toute la rue hmm. le problème mooy c'est l'exploitation qu'il faut en faire c'est-à-dire que est-ce que au niveau de la répression judiciaire au niveau de la police judiciaire yow nga daal di def porter sa plainte ak euh, euh, li nga xamee ne euh, ñoom est-ce qu'il y a les effectifs qu'il faut pour surveiller tout ça. Ah, mais ne moom moo doon gérer tout ce qui est donné au Sénégal est-ce que mënuñoo am foofu benn genre espace boo ne loolu moo koy gérer ñu jël ci jeunes yi. non ASP yi moom ñoom ci ASP yi nga xamee ne mun nañ ci les valeurs yi nga xamee ne mun nañ leen exploiter exploitable ñu exploité. Ah, mais un aspect qui n'a pas fait la formation en technique wala boog defuñu wàllu réseautage te am na jeunes yu bëri yoo xamante ni ils sont là ils sont formés dans ce domaine mën nañu gérer yooyu bu doon jeunes yooyu teg leen je pense qu'on va régler ce problème. xam nga loolu bu ko doon def dañuy def appel d'offre pour woote appel à candidature. appel à candidature dafay indiwaat encore loo xamee ne. Euh, ci benn paysage boo xamee ne dafa am absence de politique de l'emploi absence politique da ngay war a dem fenn pour bugg a soxla liggéey ubbi dugg laajte joxe sa CV joxe sa li nga am la absence boobu moo tax que ne lépp lu ñu def dafay jàng jàng bi li koy def moo di que day def toujours que ne du am euh, li nga xamee ne le suivi qu'il faut wax naa la ko da ngay jékki-jékki sax nga dem ci administration bi tu vas voir ne da ngay laajte ndax Sénégal am na administration wala déet da ngay toog ba si yàgg daal di jékki-jékki gis que ni nga dem ci justice bi ñu laa dina la wax ne am na justice à deux vitesses administration à deux vitesses da ngay toog ba si yàgg nga am benn benn document booy signé ñu daal di ne léegi euh, ministère yëpp def yóbbu nañ leen jam ñaajo nga daal di dem ba jam ñaajo document bi nga koy signé nga jóge ba Dakar ci heures du matin dem jam ñaajo ñu defal la benn tampon au lieu que ñooñu wax la ne la war nga wutaat beneen tampon bu def ni dañ lay bàyyi ba nga dem dakaar nga ñëw te fa nga kiyoo ñu daal la non fii war na am tampon fii war na am kii kii yu mel noonu gàcce boobu am noonu te nekk ci biir administration bi wala kii nga jékki-jékki gis kenn ku dee rek ñu daal di ne woy c'est Sénégal qui est mort waa ji dem na dafa amoon dëj di kii yooyu di di di di di nooyali kanam euh, te normalement administration dafa war a am une certaine continuité administration dafa am nit ka fa nekk da nga war a impersonnel nit ka fa nekk benn numéro rek nga war a doon warul nekk Mor Fall doo fa nekkul keneen daal di fa nekk mais xam nga au niveau de la gestion administrative au niveau de la délégation des pouvoirs au niveau de gestion sociale administrative bi nga xamee ne moo ci war a nekk Sénégal dafa ci am toujours un problème le problème moo di que ni boo amee boo amee dëj doo liggéey soo amee ngénte doo liggéey soo amee euh, wàcce kaamil doo liggéey soo amee euh, li nga xamee ne mooy euh, sa sa marabu war a def cant doo liggéey yooyu yëpp dafa nekk ay euh, kii yoo xamee ne ay mbir yoo xamee ne euh, dafa dañ ko jël négligé ko te fekk lu am solo la dans notre économie lu am solo la ci jamono yi ñu toll nii ci relance bi nga xamee ne parce que euh, feebar bi dina fi jóge relance économique bi financier industriel yëpp dafay dellu siwaat te yooyu yëpp buy ñëwaat di jóg di dellu siwaat dégg nga comme nekk nañ ci réew moo xamee ne mënuñu tabax mënuñu defar almet mënuñu defar euh, micro bi ñuy waxee mënuñu defar caméra yi mënuñu defar oto mënuñu defar lépp dañ koy importer lépp dañ koy importer soo waxee rek ñu daal di ne la suma tubaab bi dégg nga tubaab bi daal di ne wooy wooy c'est mon Mamadou mm-hmm. moom tubaab bi moo di que ne Sénégal faut pas y mm-hmm. dégg nga nga gis ñi taxaw fii naan la ay France dégage ki ay affaires yu mel noonu te te boo jëloon commerçant tubaab nga teg ko fii jël exemple euh, supermarché yi nga xamee ne tubaab yi ñu ko fi indi nga jël commerçant bi nekk fii Sénégal yore euh, ceeb bi yore euh, suukar bi mu ngay nëbb suukar bi dégg nga pour jaayee ko le plus fort dégg nga Auchan daal di tas bo euh, li nga xamee ne mooy euh, paquetu suukar bi di ci jël par juróomi suukar comme nañu daan def bu njëkk juróomi suukar di la ko jaay dégg nga ba pare ñu daal di ne France dégage. donc cela veut dire bu ñu bu ñu euh, defoon benn interaction jël Sénégalais yóbbu leen France jël France leen Sénégal donc France mooy mooy mujj ndërmeelu Sénégal mujj mujj développé. non bu boobaa français ca kaw lune ba la ñuy nekk di fay évoluer parce que ñun ba ñu nekkee foofu. yow va avoir peut-être ans pour adapté wu ci ñoom lañ fa wàcc noonu pour mun a xam la def bopp lan la mhm. ndaxte nga bu ñu kenn nax euh, wax ji dafa bare liggéey bi ci boppam liggéeyuñu ministre liggéeyu jamono ministre jamono ji ñi liñ tal moom mooy mooy dem dem local ak dem affaire yooyu campagne ak affaire yooyu dañu liggéeyul mhm. liggéey bi defuñu ko gis nga Macky bañ ko falee ba tey daf leen naan liggéey leen def leen naan def leen li ñu naan kii yeeg yooyu léeg daf lay wax sax ne di ak quelque euh, demal seeti ji sama jëwriñ tel dégg nga nga dem di ko topp pendant un mois du la gis dafa dema dema dema dema dema dem Macky Sall lu positif euh, lu positif lan la def de xam nga ba mu demee ba gis ne fi mu nekk nii réew mi ñu kenn liggéeyul dafa dindi premier ministre téyel ko bopp mu ngi def li mu mën nag waaye ñun ci suñu bopp suñu yaram moo nanguwul liggéey. dañoo nagam waaw yaram benn nagam pour liggéey. Mhm. yaram benn nagam pour ñu mun a am ay indicateurs yu ñu mun a permettre pour ñu mun a mesurer les avancées yi ñuy am pour mun a développer. yaakaar naa yaram bu nagam moom je pense que bëgg xaalis du yomb pour nga daal di euh, persévérer ci li nga xamante ni mooy kanam euh, donc ñu ñëw ci. ba pare bëgg lu yomb ba pare bëgg lu yomb. Mm. Euh, bëgg am xaalis tout suite. dégg nga soo gisee mënuloo sàcc fii nga daal di dem defare ji ay faux billets wala ngay jël ay passeport diplomatique dégg nga di ko de di ci ñëw di ci nax ay nit ak yu mel noonu ainsi de suite voilà la triche voilà li nga xamee ne mooy euh, roublardise wala tricherie yi nga xamee ne moom la ñu nekkee des années moom mooy génn nii. Euh, ci loolu nag la suñu émission juste benn deux minutes rek euh, ci conseil du jour bi euh, ci wàllu bëgg lu yomb lool suñu jeunes léegi moom daanaka léegi ce sont de vrais parieurs suñu papa yi nga xam ne ñoo doon jàpp li naan suñu mbokk turfiste jàpp nañ fas léegi nag xale yi léegi ñoom ñoo nekk les plus grands parieurs du pays donc ban conseil nga jox jeunes yi nga xamante vie facile. en xam nga le problème moo di wax ci lool wax ci affaire Paris mu ngi mel ni ba ñuy indi rek affaire alcool frelaté boobu nga xamee ne moo doon whisky yooyu à deux ans. yooyu. xam nga euh, booy boo xamee ne yaa ngi nekk di wër euh, a yooyu c'est le gain facile c'est am xaalis. dégg nga parce que moyen yi nga xamee ne normaux yi nga xamee ne fara nga war a jaar pour mun a am xaalis amuloo ko fa da ngay gis alternative bu nekk man gis nga terfis yi ak yu mel noonu man dama naan c'est une c'est un palliatif boo xamee ne dina tax duñu gaaw a verser dans la délinquance juvénile hmm. dina tax aussi que ni ñu dugg dans la délinquance juvénile aussi parce que boo tàmmee xaalis tàmmoo xaalis moom mooy indi loolu nga xamee ne phénomène yooyu nga xamee ne gagné naa gagné wu ma 9 nga am 9 ans la am ma jël paaka jam la. ah mais mais ci loolu aussi est ce parce que gis naa ñoo xamante ni bu ñu amul lu ñu parier dañuy dañuy dem sàcc seen xaalis yaay gis nga koo xamante sama sama koñ la xam naa ko baax a baax mu ngi naan yaay ji allo 1000 francs ma def dépôt su ma gagné jox la léegi léegi léegi mi ngi mi mooy mooy li ma lay wax rek mooy li ma lay wax que ni. am na benn moyen boo xamee ne dina indi li nga xamee ne mooy pallier euh, délinquance bi sàcc jël alalu jàmbur am na beneen côté boo xamee ne toujours loo gis rek dafa am côté huit mai dafa am benn côté boo xamee ne sàcc euh, leb sa yaay wala di am ay bor di indi ki mu indiwaat leneen loo xamee ne Euh, seytaane mun na ci dugg. voilà kon seytaane mun ci dugg donc monsieur nga daal di tàggatoo rek ak ñi nga xamante ni ñu seytaan tente na moom la lool. waaw maa ngi gërëm nag euh, suñu euh, caméraman yi nga xamee ne kenn du leen gis. Mhm. dégg ñoom ñoo tax ba lii yëpp mun a am. Zubair ak Momo mhm. ak Momo. dégg nga ak mooy euh, nga xam ne mooy Maodo mm-hmm. Malick ak mm-hmm. Momo Modou. Mm-hmm. dégg nga ñoom ñëpp di leen wax rek ne yéen internautes yi du ngeen ñu gis ak téléspectateurs yi ak téléspectatrices yi du ngeen ñu gis waaye ñoom ñoo tax ngeen mun ñu gis bay mun a ma wax sax ngeen ree di wax rek ne ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla seen liggéey bi yàlla barkeel ko. yow it nag yàlla yàggal la fi ba nga yàgg di ma nag eh, di ma interview di wax rek ni émission bi nag eh, lenn rek moom mooy catam mm. waaye dafa xaw a gàtt mm. waaw loolu xam naa DG ak ki nga xamante mooy président dinañ ci bàyyi xel yokkal ñu ko baax a baax a baax ba ñu mën a jël ay sujets yu bëri bu ko jëlee sax ñu fi am ay benn invité boo xamante ne day ñëw bokk ci émission bi a mën a yaatu donc di leen jaajëfal yéen ñu nekk ñu saa su nekk yéen ñuy seetaan di ñu topp ci seen émission eh,

de l'information et de la communication leen jox li dajee la semaine prochaine ci seen beneen numéro bu seen émission réew mi euh, fii ci Rewmi TV jërë ngeen jëf